leneen li ci gën a xëf ci xibaar yi mooy ci kaw Ada ci wàllu làmb Ada Fass ginnaaw arrestation bi nga xam ne moom lañ ko arrêté ci ginnaaw boîte bi nga xam ne ci la demoon ànd ak mbër mi nga xam ñu gën ko xam ci Pokola Balde ginnaaw bi ñu fa àndee ci baar boo xam ni mu ngi nekkoon foofu foofee la fa lañ leen jàppee daal di leen di teg ki nga xam ne mooy di adafas loxo ginnaaw ci histoire yi nga xam ne daf ko amal ak vigile bi nga xam ne moom moo nekkoon ci baar bi ci yooyu information loolu la ñu jot jot ba yoon jëloon ko daal di koy teg loxo ñu yóbboon ko fële ci polisu quatrième ginnaaw bi loolu bi ñu ko jéggalee ki nga xam ne moom moo di dossier bi procureur tey la doon taxaw ci li nga xam ne moom moo di procureur ba daal dinañ koy may libéré génn na ci Ada génn na sànq ci suba bi 11h jotee mu nekk mbir moo xam te ni mbir mu doyoon waar la daal di indi polémique ci wàllu làmb bari na ci ay nit ñu bare bare bare bare bare bari ñu nekk ci làmb daal di ci addu wax ci seenu kàddu mu nekk mbir moo xam te ni ñu bare bare bari di ci jàngat ci Ada ci yenn yi nga xam ne dafa da koy faral di def ci wàllu soirée yi nga xam ne ci lay dem ndax ku ci mel ni soirée Wally Seck ku ne gis na ko mu demoon fa doon fa jàppante ak ki nga xam ne moom moo di maam jogomaay ba jotoon na biir ba ba bi jotoon na jóg ba ñoom ñaar ñu jàppante fa ba jot fa xeex ba sànnante fa li fa mel ni ay kurfañ ginnaaw bi loolu bu ñu fa jógee ci la àndaat ak Pokola daal di demaat ci benn baar ñi ci bari ñu ngi naan bay jëla ñii di wax pono ñii di wax leneen nag leneen mais ginnaaw bi mu fa demee doon fa xeex ak tamit benn vigile boo xam te ni moom moo fa nekkoon ci buntu baar bi daal di xeex ginnaaw loolu ci lañ ko yoon daal di koy jëlee teg ko loxo ñu ci bari dañ doon wax sax naan ci information yi ñu jot a jot ne Pokola Baldé moom dafa daw ginnaaw bi loolu ci la ñu jëlee ki nga xam ne moom moo di Ada Fass daal di koy teg loxo dal di koy yóbbu garde à vue ca polisu quatrième ginnaaw bi loolu ci la ñu jébbal procureur dossier bi ginnaaw bi loolu nag ci la procureur daal di koy may libéré ñu bàyyi ko mu delluwaat këram muy actualité boo xam te ni ci làmbu la nekk mu nekk nag loo xam te ni mbir mu doy waar la muy aada du ñu ne nag guleet ci aada Fass ndax bari na ay mbir yoo xam te ni daf koy am ak yoon ci ay saa bu tollee fii dafay am kay yoon yu bare bare bare bare bëri doon nañ ko fi téye desoon nañ ko fi lu muy kii kon lan mooy conseil Ada Fass ginnaaw ñu ngi koy conseil mu dem konkaat en troisième te bàyyiwaat yenn soirée yi nga xam ne moom lay dem ginnaaw bi loolu ci lay mbiram yu bare bari bëri di xewee muy dañuy wax Fass ak doomu Fass yëpp ñu booloo dal di koy jàppale ba mu mën a génn xelam nekk génn ci ay soirée ak yeneen yi ci mel muy ku ci mel ni kaw Pokola Balde kër Falaye Balde la dëkk mu bari ci yi nga xam ne moom moo di ay ndaanaan bari ay moromam yoo xam te ni ñu ngi ca biir kër ga di yëngu ci wàllu làmb ku ci mel ni Jacob mi ngi fa ku ci mel ni Babacar Balde ku ci mel ni Ama Balde te liñ koy dégg ci moom ci yu mel noonu mësuñu ci dégg ñooñu kon moom na defaraat toogaayam bu baax a baax a baax te xam ne ñoom ñooñu di Ada Fass di Pokola dañoo am cër ci làmb cër bi ñu am ci làmb nag moom mooy ñoom ñoo ko liggéey ba am cote de popularité boo xam ni mbooloo mu bari daf leen di topp comme ñoom ñoo war a góorgóorlu ñoom ñoo war a góorgóorlu ñoom ñoo war a xam tamit li nga xam ne moom la ñu bëgg ndax làmb yaakaar naa ne làmbu góor góorgóorlu la te ku góorgóorlu yaakaar naa ne mën nga jariñu kon Ada Fass ak Pokola ñu ngi leen di ñaanal jëf ji bañ leen a dalati ñu ngi leen di ñaanal te ku ci nekk yaa ngi jëm ci bis Ada donte aj nañ ko seen de lutte bi aj na ko un an moom moo war a góorgóorluwaat moom moo war a ja rayantewaat moom moo war a rayantewaat ndax da nga daan guy gi sénégalais yëpp am fu ñu lay xaar ñi ne aada guy gi bi mu daan baaxul guy gi bu feebar la daan ñi ne aada guy gi bi mu daan nekkul ñi ne aada guy gi bi mu daan wérut nga war a ñëwaat avec la manière avec la manière bi nag mooy sérénité entraînement doole ji wow koŋŋ ndax fii bu saison bi tëjee dañu toll ci hivernal mbër yi bëgg dara yëpp ñu ngi lëlu làqatu wax dëgg ci yàlla mbër yi bëgg dara nag laa wax boo xoolee Pokola adversaire am Talfa kenn gisu ko ci vidéo kenn gisu ko mu génn kenn gisu ko mu dem fenn mooy waral ni mbër yu bëgg dara ñu ngi lëlu di entraîner kon làmb boo ci bëggee dara wala nga bëgg ci doo liggéey sa carrière rayante ba mu yëg fii te bari na ñoom ñaar ñëpp fi ñu toll tey ci làmb bari na seen i moroom yoo xam te ni bëgg nañ fi yëg si si bëgg nañ fi yëg si ci làmb bëgg nañ fi yegg si kon boo leen joog jékkee ci làmb ba sénégalais yëpp bëgg leen ngeen am ay supporters fu ne di bëre sunu borom di leen suturaal da ngeen a war a góorgóorlu fii mbër bu fi tolloo mbër warta am jot fii fi hivernal doole ji wóor koŋŋ la war andi bu saison bi ubbee nga mën a jàmmarloog say adversaire man gis naa ci ay mbër yu bare bare bare bare ci moment bi may waxe ak yow ñi ngi ñi ngi ñi ngi kayaar fay seeni téléphone loolu depuis deux mois di liggéey kon ñooñu xam naa ne bëgg nañu dara ci làmb te làmb doole ji wër péng def ci am làmb du affaire de banditisme làmb du affaire woyu làmb du affaire de banditisme làmb dépassé na foofu làmb nandate la affaire de nandate làmb esprit la te mbër mu la gën a muus ci làmb ji moo lay gën a réussir te aada ay millions cent de million mi ngi ci kanamam ay millions yi millions mi ngi ci kanamam ndax yaakaar naa ne naam bi mu duggee ci làmb yàggut tey bu ñu demee ba ñu naan aada faas ëmma seen kon yaa ngi bëgg a dugg cour des grands te foofu boo fi xasee dugg ginnaaw bi loolu làmb daf daf ay mbir la làmb ku ci bëgg dara dangay ngay rey sa bopp te fi mu toll nii tey mën na nax nit ñi ba doon champion moom Ada mën na liggéey rey boppam Pokola bu ñëwee ci kaw Pokola tamit moom ëttu mbër la jóge Falaye Balde mooy sama maam doy na héritage ci làmb kon lii la war a góorgóorlu mooy ray sa bopp liggéey liggéey ba jàpp ne tey ngay dee moo gën ay affaire de fréquentation boîte ay affaire de fréquentation milieu ay fréquentation làmb loolu yoru ko làmb d'affaire de banditisme ku ko laaj na laaj ñeneen ñi fi njëkkewoon gën leen a door respecté woon entraînement respecté banditisme da ngay mujj say morooma ay ñëw ëpp la doole te làmb benn détail boo bàyyi sa moroom a ngi koy def te laa dafa jëm ci bis boo xam te ni bis bu doy waar la moom ci carrière am ba mu dalee bëre ba léegi mi ngi doog am adversaire bu weex xat bu mel ni Talfa Talfa du n'importe qui ci làmb te am na ci lu mu jóge am na fu mu jëm ndax Youssou Ndour daf ko daan mu war a moo moom confirmation ne dafa juumoon yow nga jóge ci Liss Ndiago donte sunu borom yow la jox victoire mais ñu bari fañ la doon séntu ci combat bopp ak fi nga ñëwee du benn yow it nga war a rayantewaat ne leen dama juum contre Liss dama war a ñëwaat pour rey sama bopp dama war a ñëwaat wan ne man may mbër mi te bari na code de popularité bi nga am biir pikin nekk mbër mu ndaw yow bari na ci ay mbër yu bare baree bari mi ñu ngi biir Pikine dàq la bëre fuuf ëpp la lépp te amuñu tur boobu amuñu doye boobu boo xoolee sa kaaw ko baldi yéen ñaar yéen a bokk bemu kër mais li ngay mobiliser moom du ko mobiliser kon nga xam ne suñu borom am na cër boo xam te ni defar na la ko ci làmb bu du dara nag nga xool sa yaay ci làmb sa yaay rek boo ko xoolee yow war nga mën a rey sa bopp sa yaay rek boo ko xoolee war nga mën a rey sa bopp sa yaay rek boo ko xoolee war nga mën a rey sa bopp bu baax a baax a baax ci làmb kon dañ lay wax ne la góor góorlul ba yu mel nii bu mu la dalati góor góorlul respecteel say waa koñ respecteel ak say am di jàmm àndal ak ñi nga war a àndal comme ñi nga ko daan defee ba yëg si fii tey ndax bu njëkk ba kenn xamul woon kan mooy Pokola te yoon bi nga jaaroon ba yëg si fii tey fexeel nga rayee ko ba yëg si fii aada yow li ñu lay wax mooy da génn ci guy gi am foo jëm ñii ngi say wax sa diggante ak Lac de ngi wax sa diggante ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène Luis Ndiago jël na avance Lac te bu daanee Lac Rose far force day bëri ak yow dootoo ko mën a bañ ci làmb te daa am foo bëgg a jëm boo bañee nag liis dab day am foo xam te ni danga fay teg sa bët am ñoo jël am loo wanewaat waaw te ku dul xaare ku dul dabe moom ku xaare kenn du la dab ay góor góorluwaat jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf.